close you back, where did you go? Inosom, duting akam sa bok Haling, haling, galing Inosom, tutak ganya ko jaw Chico, chico, hisopi ko Chico, chupa, where did you go? Chico, chico, chico, chiyaw Maalam mo sa lang mo dyan ina Chico, chico, hisopi ko Chico, chupa, where did you go? Chico, chico chico chupa hua chi chico chico chico chico chio mà anh làm con sao lòng muốn chơi nè chico chi chico chi sopico chico chupa hua chi chico chico chico ino so isu tenga pham sabo halenga halenga chico chupa hua chi chico chico chico chico chio mà anh làm sao lâu muốn chơi nè chico chi chico chi sopico chico chupa misère sexuelle jeex na la maison du bio moo fa jaar moo leen indil la produit bigarek boobee produit 100 cent naturel la produit bigarek day yokk awra góor ci longueur ak ci largeur maanaam ci guddaay ak ci yaatuwaay koo xam ni sa awra dafa tuuti mbaa mu gàtt nga bëgg ko yokk jëlal bigarek mbaa koo xam ni sa awra du dëgër te bëgg mu dëgër gaawal uti produit bigarek ndax mu dëgër këcc waaye yemul foofu ak koo xam ni du yàgg ci say jëlal produit bigarek ndax day tax nga yàgg ci sëy ba fu ñu baat rek nga coupé. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kuy dugg ci ndox yi toog nii. waa gis nga ba ne maa ngi fii. naam. ça va. dama la doon wër ci kër gi ci loxo moom. waaw yow nag mën a tooy. mais xanaa juy ma. demal summi lii may ñu blouse bi tey blouse bi ngay yëndoo ci kër gi. ah non mais dimanche bi ñun dañoo laal blouse tamit nga duggee moom ci waañ bi indaale piqué. yeeg yooyu noonu yaa ma gën a xam. blouse moom ca clinique balaay am. waaw. booy togg moom nga war a sol. Ah, Malick moo ni naa la ko wax. dégg ko. ah dama ko war a faj. moom moom journée bi. dawale lay wax damay teg li ma bëgg. parce que dama yendu si. waaw xool naka ngay gérer sa dimanche bul wax. indah lagi ngepikir ya jom sen yo ino itu orang meti wow mau lo lawan deh ini juga ya yo ayo bang cek klinik balaya ada wah sama di mana jadi mau lima koma sih di mas Ah, dapat sama mari ya kulit murni. Mana nong buku kulit bi, fi, ya mengena ham termomet. Ya ino nong dia ya bagi. Film itu ya ekpin, mesti lebih buku kulit apa? Ah no. Cilok ada ya kan? Baik kulit Ya itu jam. yaa mën a bàyyi eh, mais Malick mi ngi noos de. <laughs> Eh, mi ngi noos. Aliou xaaral yow. mi ngi si biir. ah kon woo la ne man maa ngi pour mu wala dimanche moom nga ñëw yendoom ñun. dama ko doon tooñ sax ni waxul ma dafa la wax dinaa ñëw. déedéet daf ñu ma kay nee nga doo ñëw. <laughs> waaye yow je suis wi ma instant bii n'est-ce yaay dugg waañ de. man maa ngi ci biir bu yàgg. jeex na lan ngay def tey looy laal. tey. Ah. ceebu jaga bu ni muut. jeex na. xaaral ma jug xool sama waa ji géré tey maa la ko may. dama la bu leen wax dara xaar leen ma ci biir maa ngi ñëw. jeex na te da xam nga man moom sama waxoo moom. eh amul ragal ah. ci ragal xam yaa fi ne. tooñ na man si rek. chérie, mon amour, gitu, la guette, mais taille, oui, d'or. Ah, il y a déjà fait garder. Taille, ma mère, tu t'es venu, on va faire la balise là. Elle est fière d'elle. Bah, non? D'elle est pour fière. Nahman, tu es déjà en Ah, nah, nah, gitu War nga xamne man yeen la am te yeen ah, la nopp xam nga goor dafa momul tok hmm, motax parent say may nek ci yenn courte courte mhm. di xol dal affaire yi ba xam nan lay deme loolu la rek mais xam ngeen ne man yéen laa bëgg tey ba suba. ah loolu de laa bëgg a dégg naka jom euh, bi nag. ñooy sant yàlla waaw a ngi géré. Mhm. entreprise bi xam naa métti na de. <laughs> xam naa waxtaanoon nag sa doomu ndey. Ah, ci. Euh, Rose ndax mën naa ne xam naa booba tey yëgoo li xew. xam nga suñu entreprise bi ñu nekkoon. Mhm. dafa tëj. dafa tëj moo tax boobu ba léegi xam naa boo ñëwee ci kër gi. dooma fekk day fekk ma nekk ci yenn situation yi xam nga rek di wër. am ay papiers xam si déposé woon ko di xol ba xam soti na wala déet loolu rek moo taxoon tooguma dal deug la malik du courage et je suis vraiment désolée pour ci situation bu désagréable bi mais Malik, loolu du dara gis nga li ak aduna ñoo tay da fay neex suba mu demee neneen te sant yalla, l'avenir est devant nous te aussi santal yalla, tamit. parce que am nga à tes jigéen bu baax jigéen boo xamante ni moo ngi takk sëram xaarul xaarul xaarul daal loo xamante ni tey jii nii mën naa ni tegu la yenn coono yi comme ni ko yeneen jigéen yi di defee. li nga wax aussi dëgg la gis nga góor moom ci tout les charges du monde ku nekk xam na ni toogaay dootu la yomb mais nag affaire yi moom nànk-nànk na suñu borom après. li ci des moom moo koy matale yow sa devoir sa wareef def ko comme tu l'as dit toog di croiser les bras parce que y a jamais deux sans trois mais dama lay wax rek nga def nànk te nga xamante ni liy ñëw ci kanam moom moo daal. jërëjëf euh, ci conseil yi su ma la amul woon ku mel ne yow ak Rose mën naa ne dana demee neneen. animu moom sax. dafa xëy xam nga moom amul jot gu muy toogee. ah mais moom yaakaaroon ni ci repos la nekk. moom day amoon ne quatre jours de repos waaye. Mhm. mën naa ne deux jours la toog ñu woowaat ko pour mu dem liggéeyiwaat mais ñoom seen liggéey bi dëgg la ku nekk da ngay ñaan yàlla liggéey ñaq jariñu waaye seen liggéey bi daal metti na trop ndax dangay war a dallu mais duñ la may foo dalloo waaye loolu sant yàlla la ndax comme li ma la doon wax sànq. Mm. Ah, am na ñoo xam ne si maa leen tane. dëgg la ndax man lu mu dee dee mën naa ne Rose mu ngi liggéey euh, di ma jàppale ci yenn côté te am na ñoo xam si amuñu yooyu te yow mi tamit di xaritam kenn demul nga des mënoon nga ko doon conseiller leneen mais defoo loolu lu rafet la ngay wax si mbir dañuy ñaar ma la ciy gërëm bu baax. Malick loolu daf ma waar nit sooy ànd ak moom dañ koy digal loo xam ne si tu étais à place loolu la ngay def te Malick yow da nga nekk góor bu baax.

di ko gën a jàppale te xam ne moom sama xarit la nag dañuy waxtaan man ak moom on partage trop de choses même te dafa may wax yërmande bu mu am ci yow ñu mu la bëgg a jàppale donc yow en retour dama bëgg compréhension boobu aussi nga dawal ko te xam naa danga koy def mhm. ndax yow xam naa ne danga bëgg sama xarit <laughs> gis nga mari mhm. Rose benn bu ma bëgg bëgg naa ko fukk ndax tey jii manoon na doon liggéey di gañe soldam mais du ko def ci kër gi waaye maa ngi sant yàlla bi ma amee ku mel na moom wax dëgg yàlla mën naa ne càmmooñu na ma nday na ma waaye yow mii di xaritam tamit kenn demul nga des maa ngi lay sant di la gërëm waaye comme moom dafa xëy xaaral ma dugg ci biir defaral la benn lëwal ak deuxième bu toog xam nga ni loolu man du ma ko nangu toog fii ngay dugg ci waañ bi ni ma tegal ataaya loolu xam nga ne man bi maa jublu def ko nag yow. tamit waaw defal loolu defal loolu benn lay. waaw dëgg la maa lay xaar. baa ma jub ci waañ bi. mais nag ko sukkar si bari nag de. Eh, déedéet du ma ko bari. bëgg sukkar bi. toq laay def bëgg ma nga jabet. waaw defal loolu. mashiripoivone maye yow ndaw si lee dox naa te man gis naa laay baby boy de